ginnaaw bi ñu sant yàlla da ju julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant di gërëm internet yéen ñuy topp fii ci Leewtoo TV ngir ñu leen indi li gën a fës si bopp xibaar comme toujours di ko ñaanal jàmm ju bare bari Mbaye Babacar maa ngi lay nuyu jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu mbokk internet yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV di la ñaanal jàmm Assane Wala nuyu naa la euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte ci noonu nag Ibrahima Jador mooy li may seen revue de l'arène chaque jour mercredi 17 mars 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam mu njëkk Modou Lo sur son combat contre Ama Baldé on veut lutter pour nous libérer. moom mii di Modou xarañ loo wax na ci kombaam ak euh, amaa Baldé di sëll bu ndaw bi nekk fële ca Pikine nee na moom daal li mu bëgg mooy euh, gaaw bëri combat bi ngir mu mën a jàll ci leneen Assane. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee Modou Lo sur son combat contre Ama Baldé on veut lutter pour nous libérer nee na moom daal li mu bëgg moom mooy ni mu gën a gaawee ñu bëre combat bi jógee ci nekk ci leneen moom nag wax na également nee na am na yaakaar ne Luc Nicolaï war na génn prochainement. pour euh, rassurer euh, amateurs yi ci combat boobu waaye nee na également situation bi bu nekk situation bu difficile la te ñoom ñëpp kenn arrangé wu ci wax na également ci rencontre bi ñu doon am ak ministre bi nee na ministre bi accepté na erreur am te excusé wu na devant les lutteurs. waaw juum nangu na dangaa juum asal loolu dara nekku ci. ndax nga dëgg noonu la. <laughs> ministre bi dafa juumal quoi. Mm, ñëppay juum mu ngi noonu changement de programme Moussa Ndoye Sa Thiès de feu. ki taxawal boobule combat mooy euh, Gaston Mbengue borom Gaston production mu mel ni combat boobule euh, démb la taxaw. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu doon dox combat Sa ak euh, Garga Mbossé finalement Sa Thiès euh, Moussa Ndoye lay daje ndax Gaston Mbengue moo tëgg combat boobu démb la ko tëgg Gaston Mbengue nag nee na suñu làmb ne Gaston Mbengue décroché na benn de feu euh, manageru Basiru manageru liti éditeurs yi nag ñoo fa teewoon Basiru Baabu moom mooy manageru Sa Thiès Ngouda Fall doon représenté Sawru Fall mi nga xam ne moom mooy manageru Moussa Ndoye ñoom ñoo jot seen chèque démb ci CNG lañ ko la loolu doon amee ñu fàttali ne Sa Thiès euh, dernier combat am euh, daf ko pertoon devant Boy Niang 2 le 11 mars 2018 Moussa Ndoye également dafa pertoon dernier combat am Garga Mbossé moo ko daane woon le 28 avril 2019 Ndeye Mbacke. mu mel ni ñoom ñaar ñetti défaite lañ jógee. ñoom ñaar bi pour relancer lay nekk. voilà ñoom ñaar ñëpp ci défaite lañ jógee donc kenn amatul droit nga amaat euh, tegale beneen défaite ci combat bi. mu ngi noonu Pakala Forza la la revanche actée par Gaston mu mel ni Gaston ba léegi yéen Ndeye Mbacke yaramam dafa tàng waaw mel ni andil na amateur yi ñaari combat ya nga xam ne bu ci nekk rek combat la ci biir combat yi gannaaw ba mu taxawalee Sa Thiès ak Moussa Ndoye bi yoon dafa ñëw ci diggante Pakala ak Forza di revanche ba nga xamante ne bii euh, ni koy waxee combat bu nar a neex lay doon te amateur yi mën nañ koo taaxirlu dëgg la mbay Babacar ginnaaw bi mu tegee Moussa Ndoye Sa Thiès euh, Gaston Mbengue def ci teg beneen combat muy Pakala ak Forza suñu làmb nee ne eh, combat bi nag combat revanche la ndax ñaari mbër yi daje woon nan le 4 avril 2012 Pakala moo fa daane woon euh, kii di Forza maintenant 9 ans après nag euh, Gaston Mbengue boolewaat leen ñu fàttali ne Pakala dernier combat am daf ko perte euh, devant Gris 2 loolu mu ngi xëye woon le 21 mai 2017 donc Pakala war na jël revanche ci Fass. Forza moom nag dafa amoon victoire ci dernier combat mu Abdou Diouf 2018 la xëye woon Mbaye Babacar. mu ngi noonu Balla Gaye 2 mais en garde Bombardier le B52 de Mbour dinaa ko duma dinaa ko daan. ma ngay dànkaafu euh, kii di Bombardier <laughs> waaye Bombardier moom euh, champion la ba nga xamante ne bii xub dàq ko te it xuux taxul mu daw Balla Gaye ma ngi koy ma ngi koy dànkaafu ma ngi ko naan. su ma la jàppee dinaa la duma danaa la daan wante yemul foofu nee na ci fan yu néew dana dem fële ca INSEP ca Paris ngir gën a waajal boppam. dëgg la Mbaye Babacar kàddu yi euh, Balla Gaye mi ngi ko tenir ci euh, bi ñuy dajeeg ministre euh, de la justice muy Malick Sall. moom nag wax na journal suñu làmb mi ngi fay artu Bombardier nee na dinaa ko dun duma dinaa ko daan loolu nag ñu ngi xaar mu am ndax Bombardier duma ko daan ko du yomb. waaye comme ni nga ko waxee Mbaye Babacar ba bala Gaye nee na également ci fan yu néew wala ci jamono yu néew war na dem foofa ci France ci benn institut bu naan IPSES pour mën fa préparer bu baax combat bi contre euh, Bombardier waaye waxtama également dina dóor ba Bombardier amaa mu koy daane ñu xool nag euh, bàyyi wànnante ak gëtam xool nu muy. ñi yónni yàgg comme ni ko Mbaye di wax. ñi yónni yàgg li ci kanam rawati bët. mu ngi noonu Babou Ngom une maladie m'a fait prendre du recul mu mel ni tawata ko tax dellu ginnaaw mbay. waaw loolu la Babou Ngom wax nee na lii di feebar moom moo taxoon ñu gëj koo gis ci làmb ji Babou Ngom nag nekkatul ko ñuy présenté Assane ci arène bi ndax tambour major la ba nga xamante ne bii man macha allah galonam euh, bu jibee rek amateur yëpp daal di kontaan moom nag euh, seek na waxtaan bu yaatu ak suñu làmb. dëgg la Babacar waxtaan bu yaatu la séq ak sa xarit Abdoulaye Diagne bu Kaolack voilà euh, euh, entretien bu bu yaatu la baa bu Ngom nag ñu xam ko mu nekk un grand tambour-major ci arène bi surtout ci lutte simple mu dikkaat nag waxtaan ci ak journal suñu laam moom nag li wax mu ne li tax mu arrêté dëgg yi mooy que benn feebar moo ko tëraloon waaye nag ci biir entretien bi wax na ci kii di doomam di Momo Ngom nee ne euh, malgré retrait boobu Momo Ngom assuré na relève bi te Momo Ngom nee ne am na avenir bu baax a baax ci tëgg bi te mi ngi suivre ay conseil am li mu koy conseil daal mooy que mu gën a yaru di respecter ay magam ay ay waajuram kum daje ki euh, làmb ji teg ko waa def ko ni waajuram loolu bu ko defee rek dina réussir. muy ay ko muy ay conseils yu am solo ndax li euh, naan ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay won fi ngay toogee mais tamit mu ngi préparer li nga xamante ne bii moom mooy relève am ndax nu ñu koy waxee doomi mbër moom ngaa war a jàngi bëre yàgg yàgg des na la mës a ñam. la. muy noonu Gris Bordeaux président des lutteurs en activité on a renoncé à notre plainte mu mel ni dafa dellu ginnaaw ci li nga xamante ne mooy topp ba mu doon topp kii di ministre bi Gris moom moo jiite mbër yi nga xamante ne bii ñoom ñooy bëri ci jamono yi ñu toll ñoom nag ku ci nekk xam na ne ñoom dañoo meroon bu futt gannaaw ba ministre bi yëkkatee kàddu yu yu xaw a doy waar yooyu tegoon ko ci kaw mbër yi Euh, léegi nag daa ni jàmm mu ngi dellu si waat ndax plainte bi ñu dugaloon jëmale ko ci ministre bi léegi euh, retiré nañu ko dëgg la mbay Babacar ministre Malick Sall moom moo sàkk woon euh, daje bi ak euh, VIP wala ak euh, membre association des lutteurs en activité moom nag ginnaaw bi mu leen bi mu leen woowee ci këram mbër yi wuyu ji nañ ko li ñu fa xamle daal mooy que ne plainte bi naroon a def contre ministre boobu léegi bàyyi nañ ko teg nañ ko ci suuf waaye Gris Bordeaux nee na ministre bi reconnaître ne dafa def erreur erreur la def ci communication waaye mi ngi excusé wu devant lutteurs yëpp looloo tax daal ñu ne plainte bi ñu defoon léegi seen nañ ko. mu nga noonu jum du wees ku jum la dañ koy nangul Lac de Guiers Eumeu Sène régularisé hier mu mel ni compa boobu le 4 avril incha allah dinañ ko fi xaar. mu mel ni euh, ni nga ko waxee combat boobu amateurs yi ñu ngi koy xaaral léegi nag euh, wurawa dem na këng waxi mag dem na ndaañ taañ léegi combat bi régularisé nañ ko démb la woon fële ca CNG Assane euh, suñu papa bee nga moo taxawal boobu le combat ci diggante Eumeu Sène ak Lac de di combat ba nga xamante ne bii bëre woon nañ fas yéene bërewaat. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu ko kalee le 4 avril euh, bii di ñëw Gaston Mbengue démb ci mardi bi dem na CNG régulariser combat bi war a dox ci diggante Lac de ak Eumeu Sène léegi daal officiel na ci CNG ginnaaw bi mu ko taxawalee euh, léegi officiellement euh, combat Eumeu seen ak Lac de dina am le 4 avril 2021 incha allah. mu ngi noonu du yàgg dara le CNG et en négociation Mbaye Babacar. waaw gannaaw ay jàmm. mi ngi noonu euh, CNG ak arbitre yi ku nekk xam na ne euh, ñoom tamit jamono yooyu passé ñu ngi woon ci ay jafe-jafe wante fu mu toll nii ñu ngi waxtaanaat ngir lépp mën a delluwaat ci jàmm ñu mën a sumbaat làmb ji nga xamante ne bii buñ ko sumbee du am benn jafe-jafe Assane. dëgg la Mbaye Babacar démb CNG bi recevoir on arbitre pour ci ay waxtaan. léegi bi waxtaan yi jeexee nag Abdoulaye Bopp yor kàddu CNG waxtaan naan na ak euh, journaliste yi li mu leen wax nee Euh, CNG ak arbitre yi ñu ngi ci ay négociation bu baax a baax nee neen négociation yi nag sotteegul waaye ñu ngi négocier pour xam yan condition la arbitre yi war a demee ci saison bi nga xam ne ne ubbi na depuis le premier mars daa mel ni maman Ndeye kanamu Assane la jaar léegi de. mu ngi noonu maman sax daa bëgg a yàq revue bi di fi romb ak ay ndékki yàq suñu xel yi mu ngi noonu. galaadul simple Pape Thialis Faye le boss de l'auto production moo organisé mars incha allah féete Joal Fadiouth. lam ca teg nag mooy mise un million cinq cent muy lu am solo Pape Thialis mi nga xamante ne bii euh, moom moo jiite Leewtoo production gannaaw bi mu taxawalee Boy Niang ak Tapha Tine yemul foofu dafa dugg ci bëri simple bi euh, di tëgg incha allah gala bu am solo le 27 ak le 28 mars fële ca Joal faj di dëkku làmb nag euh, teg ci 1 million 500 mu mel ni mbër yi. ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo bëgg lutte traditionnelle ku ci mel ni sama xarit bi laal yoon nekk fële ca Mbour géej mën na noo waajal bu baax a baax a baax xam ne daañu màndi làmb bu ci yàlla àndee dëgg la Mbaye Babacar Pape Thialis ginnaaw bi nga ko xamee ci lutte avec frappe bi maintenant nag mu ngi ci lutte avec euh, lutte sans bi te war ci bay waaram bu baax a baax a baax looloo tax le 28 ak le 20 euh, le 27 samedi le 27 ak le dimanche 28 mars yu ñëw mu ngi jëm ca Joal lu mu fay def dafa taxawal benn grand gala de lutte lu mu ci teg benn mise de 1 million 500 léegi nag gala bi euh, samedi 27 lay commencé ak les poids lourds poids lourds poids léger poids 500000 la la demee di dimanche euh, ba poids lourds yi ñoo fay daje 1 million la leen tegal euh, gala boobu nag ku koy animé mooy Ndeye faatu aadama Dialy ak Diap Diagne kun ko marraine moom mooy le ministre euh, Aïssatou Sophie Gladima mi nga xam ne li moom mooy ministre di pétrole et des énergies. waxu noonu nag lu waay doon jaay dina lamb bis boobaa lamb ju mag a mag a ngi noonu. mais yaa ngi préparé dañuy dem Joal. man waajal bu baax. ak Fama ak Aïda matu dañuy dem Joal incha allah. incha allah mu ngi noonu. te journal record lañ jëm ah, MMA Luc Etienne coach français du B52 de Mbour xam ne ci journal record mooy Pudzianowski n'a jamais eu un adversaire comme Bombardier. voilà français boobu nga xamante ne bii moom mooy tàggat Bombardier ci wàllu MMA nee na Pudzianowski mësul am adversaire bu mel ni. Euh, Bombardier wante tamit Assane. Mhm. Bombardier yem na client de. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Luc Etienne moom mooy coach euh, Bombardier ci wàllum MMA moom nag li mu wax nee ne Pudzianowski bi nga xam ne ni moom moo war a dajeek Bombardier la 20 mars bii di ñëw foofu sa Pologne nee na euh, Polonais bi am na adversaire boo xam ne nii mosu ko am ci àdduna muy Bombardier wax na également ci préparation bi nee na seen préparation bi ni nga ko bëggee woon demee demeewul noonu bëggoon nañ am préparation bu gën a euh, bu gën a complète waaye nag nee ne comme amuñ ko liñ am den ko euh, téye euh, préparé ci ba nga xam ne nii la jour ji den man a gagné diagnostic yi avec la manière. mu ngi noonu di ko ñaanal ndam lu rëy rëy doomu Sénégal boobu di Bombardier doomu Mbour boobu di la jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës si bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo be xanaa di fàttali suñu mbokk jigéen ñi rek ñu gën a jàppante ak huile bi di huile Zador ndax mooy diwlin bi gën ci diwlin yi di leen dig daje incha bu ci yàlla àndee suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène. na Mbacke di la remercier comme d'habitude di remercier <laughs> waa Linguère di remercier <laughs> Yacine Fall Fama Mansour tout le monde équipe bu Leewtoo yëpp ñu leen remercier di leen remercier di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. mu ngi noonu nag di jaajëfalaat bu baax internet yi ñuy topp fii ci Leewtoo TV suñu sañoon ku ci nekk lañ lay fekk fa nga ne ne la jàpp suñu fukki loxo daal di leen nuyu nuyoo bu gën yaakaar naa yéen tax ñu fiy nekk chaque jour di leen indi li gën a fës ci bopp xibaar yi mooy incha allah ci Leewtoo TV